seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu ngeen gisee lii mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Daayiram Fatul Bichri ci ndigal Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér. ñu taxaw ak sunu jëwriñ Serigne Khadim Touré di waajal bisub sant Serigne Touba Seydou Khadim ci turu Daayiram Fatul Bichri bépp ak mboolem ñu ñu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 di rafet la bu baax taxawaay bi comme ne ko sëñ Modou waxee rek mbokk jullit yi ak yu taalibe yi bis boobu nga xam ne dañ ko bokk ak tund yëpp rawatina mbokk jullit yi muy sant Serigne Touba gi ñu def fii ci postu kër yëpp ci résidence Seexul Xadim bi moom la ñu jàpp la 24 février incha allahu rabbi comme ne ko sëñ Modou waxee fas yéene ko ànd ak képp ko wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah comme nañ ko daan defee rek ni ko sëñ Modou waxee ñu ngi fas yéene ànd ak Serigne Khadim Gueye ci jànge ak Serigne ak sa Samb Serigne Modou Aida ak nam daan demee rek nag euh, ci wàllum conférencier ba ñi ci daan ñëw sëñ Gànna ak Serigne Samb ak ñeneen ñu yaakaar ne dañ taxawu su bis bi. bis bi nag solo si mooy ren ñaari bis la yoo xam ne dafa toftaloo muy ngontul maam Ibrahima Fall ak sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha waxee nee na Bamba ju àndul ak sikkar moom day mel ne xaw naa nu kon nag ñi ngi leen di yëgal ne bis boobu la 24 février fii na ci kër Serigne Touba ge nañ ko baaxoo def at mu jot di ci woo nag suñu mbokk yiñ bokkal yëpp ci tund wi euh, xam naa deesut ko mën a lim ndax it wañ kii bu gàtt bu gudd waaye buñ ci waxee ko mel na sëñ Alioune jaabo ak Serigne Daara Seexu Thiam buñ leen ci wooyee rek mel nañ leen ci woo yëpp njiital daayira yi yëpp it nag euh, Touba Loyeen Touba Farafeñe rawatina suñ jawrin yi ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax a baax a baax na bis bi moom bisub tund wi la rawat na ñu yaakaar sëñ Tuubaa kon mbokki jullit yi mbokki taalibe loolu mooy yëgle bi nga xam ne euh, mafaatihul bisri yëpp ñoo àndoon di ko yëgal seen mbokki jullit rawatina seen i mbokki taalibe bis bi ñu defal Seexul Xadim fii ci Kër Sikar yëpp ñoo ngi leen di ñaanal képp bismillah boo amee la ko waaw bu ngeen gisee image yi nag mooy dañoo nekk ci kër gu tedd gi Sëriñ Tuubaa Xadim Ahmadu Dam di liggéey li nga xam mooy wàllu nekk waay muy daara ji ñu nekk muy daara nii nga xam ne ñi nga ànd ak mboolem taalibe yi ñu taxaw nii di liggéey ni ko Serigne Khadim waxee ñi ngi woo mboolem jëwriñi daayira yëpp li commencé Daaru Looyin Daaru Mbàpp Sangap Ñooro Carrefour Jaarumbe Binjoona ak mboolem dëkk yi ñu wër yëpp ba passé fépp rek fu fi jëwriñ nekk rek ñu lay woo ci turu daayira Fatou Bichri di ñaan yàlla àgg nañ ak jàmm barki si yow